mën a mën a neex na lool waaye waa jàngee moo gën a wóor Serigne Mouhamed Sarr boroom alxuraan yàlla may ko lool ci wàllu faj wàllu ñaan rawatina listixaar Serigne Mouhamed Sarr da ay jafe-jafe sa wirgu yaram muy hypertension hémorroïde ndoxum siti bàyyiwul dara da koy faj. ci diir bu gàtt si kàttanu yàlla Serigne Mouhamed Sarr bu la dugalee xalwa génneel la ay sarax sa aajo dina faju incha allah moo taxit kilifa yi gën a mag ci réew mi dafay liggéey ak ñoom ndax dañu ko jox bopp lool xam-xam bu wér te woo Serigne Mouhamed Sarr di jàngalekatu alxuraan yor daara yor ay ndaw di di jàngal diine ba réew mi yépp daal di koy naw lool bokk na ci li ko yàlla gën a may jigéen bu toll ci am doom tëw a am doom boo ko seetee léegi nga dégg yaay booy woo ko ci numéro téléphone yii ma lay bëgg a jox 78 293 75 17 wala 70 985 81 16 ba ci wàllu tukki wàllu noob ak yeneen yu ma limul Serigne Mohamed Sarr boroom xam-xam bu wér te wóor boroom xam-xam bu wér te wóor ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah